julli jumaa ku mu war tey doon faratay jëmm mooy faw rek day dem defi ko waaye bu ñëpp defee itam te moom defut du tax bàkkaar wàcc ko dana am bàkkaar ci ñàkk gaa julli ga jumaa kum war nag mooy koo xam ne góor la te gor la te amut lenn ngànt koo xam ne góor la gor la te amut lenn ngànt rek julli jumaa war na ko léegi sax amul teqale gor ak jaam waaye ba mu amee teqale moom julli jumaa dafa am sart yoo xam ne ñooy tax mu war jëmm ji am sart yoo xam ne ñooy tax julli ga wér nga xam ne bu jullee ba noppi ñu ne julli ga wér na duñ ko ne julliwaatal muy njëkk a wax nag sart yi tax julli ga war mu ne juróom benn la danoo gàttaloon ne julli jumaa kam war mooy góor goo xam ne gor la te amul ngànt ci teqale bi mu ko teqale nag moom juróom benn la ko def njëkk wax jëmm ja di góor jigéen moom julli jumaa waru ko bu dee màggat moo xam ne kenn gëstootu ko waru ko waaye sopp nañ mu julli ji mbaa boog dagan na amul genn sib bu dee ndaw lu jigéen loo xam ne amul taar te waajul boole ca ba tey mën naa dem waaye bu dee ndaw lu jigéen lu am taar wala mu waaj xeeñoo xet gu neex moom day araam mu dem jumaa ja ñaareel bi mooy ak ngor jamono yi ñu amee teqale gor ak jaam gor la julli jumaa war waaye jaam moom julli jumaa waru ko bu ci amee ndigalul sang ba nag mën naa dem ñetteel sax sax mooy mu bañ a nekk di tukki koo xam day tukki tukki boo xam mat na doxu wàññi te yéen wuta sax foofa ñeenti fan julli jumaa ga du ko war bu fa yéenee sax ñeenti fan nag julli jumaa ga door koo war su boobaa itam mën na koy jiite ndegam dal na koy war bi mu ci teg nag mooy jege jumaa ji daa bëgg wax ne bu fekkee ne nekkul ca dëkk ba jumaa ja nekk kon digganteem ak soroor ba buñ ko seetee na toll ci ñetti miil mbaa mu yées ko mooy tax julli jumaa ga war ko ñetti miil mooy benn far sax ndegam nekkul dëkk ba jumaa ja nekk te digganteem ak fa soroor ba nekk ëpp na ñetti miil yooñu mbaa nga ne ëpp na ñetti miil ak ceer ndax dañuy wax ñetti miil ak ceeru miil su ëppee loolu rek julli si waratu ko kon nag nga daal di xam miil du mën a ñàkk miil nag sëñ Mbàkke Bousso na ko yàlla doolee gërëm dolli ko may leer dafa bari woonu gëstu lool joxe woon na ci ñaari takk-takk dañuy far jël nag lim ba gën a bari ndax lu mel nii moo cay gën a wóor miil canam ko tolloolee tolloole ba gën a bari ab lim mooy mille huit cent cinquante cinq mille huit cent cinquante cinq mètres boo ko defee ba mu ñetti yoon muy ñetti mille da lay jox cinq mille cinq cent soixante cinq kon cinq mille cinq cent soixante cinq mooy doon ñetti mille maanaam juróomi kilomètre ak genn wàll yu tegal soixante cinq mètres boo ci dollee nag ceeru mille ceeru mille day doon six cent dix huit six cent dix huit boo ko yokkee ci lim bee nga wax léegi day daal doon six mille cent quatre vingt trois loolu mooy juróom benn kilomètres yu tegal téeméeri mètre ak juróom ñett fukk ak ñett kon bu fekkee nekkoo dëkk ba jumaa ja nekk bu tolloo ci juróom benn kilomètre rek yu tegal ñaari téeméeri mètre xamal ne julli ji jumaa war na la bu ëppee loolu nag julli ji jumaa waru la soo mu nee dem nag bokk ca julli jumaa ga ndax yàlla bindal la tuyaaba ju bare bari def nga lu baax a baax boo xasee nekk nag ci dëkk ba jumaa ja nekk moom ak loo sori sori rek julli jumaa ga dal lay war nga ne boo dëkkee Touba fii mu nekk mbaa boog boo dëkkoon Ndakaaru te jenn jumaa nekk fa it ak foo mën di nekk rek war di julli ci jumaa loolu mooy ñeenteel bi ci ni wàññee juróomeel bi mooy al istitaan dëkke al istitaan nag dana yóbbaale sax ga nga weesu waaye daa amee meneen maxnaa maanaam béréb bala ñu faa sañ a tabax jumaa dañuy sart nañu dëkke doon dëkkiinu ku nar a toog di wéy nga xam ne coobare yàlla moo leen fay toxal waaye nañu dëkke moom dëkkiinu dëkk di wéy la lu mel ne pël yi li ñu def nga xam dañuy màngaan rek nga xam ne lim bu bari ci ay pël mën nañoo tas ci béréb fekk la ko waral mooy lañu soxla mooy ñax maag ndox ma dafa am rek waaye bu fa amatut ñu toxu dem feneen ñu mel noonu bu ñu sañ a tabax jumaa waaye nag bu mbooloo ma xasee bari bari goo xam ne rek doy nañ ci seen bopp ba lañuy def du ñaani ku leen ci dimbali ci beneen dëkk mbaa boog dëkk ba réyewul noona waaye ay dëkk yu ndaw ñoo tase seet fenn def fa jumaa di fa bokk di fa julli si biñ ca boolee dëkk dëkk yi nu ku nar a sax di wéy nag daal di sañ a tabax jumaa buñ taxawalee jumaa ja nag ba noppi ba julli rek des ca moom bu fukk ak ñaar teewee yu bokkut ak ilimaan rek dal nay baax waaye nag mbooloo ma mënta manqué fukk ak ñaar yu bokkut ak ilimaan na ko wax léegi ci bu dee wax sart yi tax julli gaa wér bim ci teg nag muy kooku ak wéru yaram moom da ko tudd noonu rek waaye mënoon na koo boole ci ngant yi ndax ku amul wér tawat moo fa sës bu dee tudd na ngant yi dana ci waxaale wéradi kon fi mu tudd asihatu wér mën ngaa jàpp rek ne ñàkk am benn ngant ci ngant yee moo ko tax di wax sart bi njëkk a wax ci lay tax julli gaa wér mooy julli jumaa moom faw dañ koy julli julli mbooloo buñ ko kenn kennoo rek du baax ñu xamaale foofu ne soo ñëwee di julli ci jumaa fekk ràkka bu mujj ba ñu rokkoo ba siggi man nga caa ànd noonu rek sax bañ sëlmal waaye buñ sëlmalee da ngay jóg taxawal julli tisbaar boo fekkee na ràkkab ñaareel ba nga xam ne am nga ca benn moom dal ngay bokk ca julli ga kon bu ilimaan sëlmalee da ngay jóg fay ràkka bu njëkk ba waaye daal ràkkab ñaareel ba muy ba ca mujj moom bu fekkee fekkee woo jàpp ca wóom ya boo ca àndee itam bu ilimaan sëlmalee da ngay jóg liqaam nag daal di taxaw julli tisbaar li mu wax ne mbooloo mu ànd ko góolu bu dee ci yoonu al imaam Malik dañuy wax ne mbooloo ma nañu bari bariwaay bu toll ne seen xel dana dal bu leen ay noon songoon it ñu mën a aar seen bopp buñ bëggee def dara ca dëkk ba mën koo deful seen bopp na mbooloo ma baree noonu ba dëkk yu baree bari yu ndaw sësaloo def noonu loolaay tax ñu am sañ-sañu taxawal jumaa gannaaw buñ taxawali jumaa ji nag ba julli rek des te moom niñ ko waxe woon léegi bu fukk ak ñaar teewe yu bokkut ak ilimaan rek dal nay doy ba tey julli jumaa ci jumaa rek lañ koy defee des ko defe ci ak ndànd fay-fay mel ne bërëb bu yaatu rek noonu jëmmi jumaa ja nag lañ cey bañ mooy mu yées dëkkuwaay yi nit ña nekk foofee su fekkee ne jumaa ji yéesut seeni dëkkuwaay rek dal nay baax yéesul dëkkuwaayu nit ña rek dal nay baax bu dee mag ña daan dëkki ay néegi ñax dañuy def jumaa ja néegu ñax bu dee jamono yi nga xam ne seng borom barkee koy am buñ defee jumaa ja seng mu dal di baax bu dee suñ jamono ji nga xam ne tabax mooy dëkkukaay yu baax yi jumaa ji faaw dañ koy tabax wax ji gën a wër nag mooy mën naa bañ a am ab xadd ca kaw ñàkk bu fekkoon ne xadduñu woon kaw ga it du wàññi dara dañuy fexe rek ba waxtu wa ñuy julli am lu ñu muuree kaw ga ba mën caa julli rek waaye nag bu ñu tabaxee jumaa ja tabax bu yées dëkkukaay yi nit ñi moom du baax ni ki jamono ñettee lu sart ca lay tax julli jumaa ga wër mooy faaw am ilimaan ju jiite ndax nee nañ mëne su ko kenn kennoo ilimaan ja faaw dafay dëkk mbaa boog bu fa tukkisee mu yéene fa sax ñeenti fan ba julli jumaa ga war ko bu fekkee ne dafa tukki si dëkku fa te yéeniwu fa sax ñeenti fan julli jumaa ga du ko war kon du ko mën a jiite bu dee ba ñuy teqale gor ak jaam it day nekk gor ndax yooyu jamono jaam julli jumaa waru ko te bu ko warul du ko mën a jiite dañuy sart nag moom muy jiite julli ga mooy def xutba ba boole ci julli korite mbaa tabaski moom mën na kay jiite keneen xutba julli jumaa moom kay jiite julli ga faaw mooy def xutba ba nga xam ne bu ilimaan xutba woon ba àggal am ngànt loo xam ne mënees na koo xaar mu dem ñëwaat dañ koy xaar ndegam ngànt loolee luñ mën a xaar la bu dee ngànt luñ mënta nit nag ki mu xutba ba noppi far faatu kon faaw keneen na koy wóotu loolaay dogal ba sart bi ci mujj nag ci tax julli gaa wér mooy faaw ñu xutba ñaari xutba du doon benn ñaari xutba lay doon te it lay tax xutba ya baax ba ñu xutba fekk tisbaar jot buñ teelee xutba te fekk tisbaar jotagut buñ jullee fekk tisbaar jot it du tax mu baax te it ñaari xutba yi dañuy jiitu julli ga su julli woon ba àggal door a xutba dañ koy wax ne ko baa mu waatal julli gi ndax julli gi topp ci ñaari xutba yi xutba yi na doon liñ aadawoo tudde xutba bu ñu nee xutba mooy na ca waxante mbooloo ma digal leen lu leen di jariñ aay leen lu leen di lor loolu mooy sarti xutba di kii bu leen digaloon ñu ragal yàlla te moytu lépp lu yàlla aay rek kon digal na leen tere na leen waaye bu yemoon ci sàbbal rek yàlla wala laa ilaha illallah wala allahu akbar rek du tudd xutba dañuy sart itam xutba bi ñu defee ko ci làmmeñu arab nga xam doonte ña fa teew ñëpp kenn kenn déggu ci arab it duñ ko sañ a def moom xutba bi lu bokkut ak arab nga xam ne ñu njëkk ña dañuy wax ne su fekkoon ni amuñu kenn ku mën a wax làmmiñu arab ba mën a xutba ci arab jumaa da leen di wàcc boo dee xool aqrabul masalik alxalaamatu saawi ma ko doon saraa doon na wax naa fa law kaana alxaatibu ajamiyan mitlahum laa yuxsinu cheyan min alarabiya aslan saqatat xanhum aljumua fekk daa jëkk wax ne arrabihu an yakunaa mbaa an takunaa billugati alarabiya wa yajharu bihima walaw li ajamiin waaye nag suñ jamono ji moom boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañuy doyloo ñi daje di xool ni jamonoy doxe di joxe ay àtte yu yees dañoo wax ne sañ nañoo xutbaa lu bokkut ak làmmiñu arab làmmiñ wa ñëw ñu dégg rek mënees na caa waxe xutba ba ndax ñu xam ko kon ñu jàpp ne ñi ñu doyloo ñuy gëstu wàllu fiq àttey shariha yi daal léegi ci suñ jamono ji marsa nañ ci ne xutba ajjuma manes na koo def lu bokkut ak arab muy làmmiñ wa ñooñu dégg rek teewul nag dafa mel ne ni waa tuubaay def manes na koo def sàmmonteeg cosaan la te li tax ñu tëral tëral bu yees bi itam dara du ca raw ndax bu ñu nee xutba bi duñ ko waxee ci arab ñi koy dégg duñ ko mën a xam mënees na balaa ilimaane ñëw rek am ku jiitu si firi xutba bi ba ñëpp xam lañ cee wax ilimaan door a ñëw nag jàng xutba ba ci arab ni ko waa Touba defee waa Touba moom ba léegi amuñu genn soppi ci loolu ilimaan ji nga xam ne mooy xutba du wax dara dara lu bokkut ak làmmiñu arab wi balaa ñëw nag dana am ku jiitu si waxtaan yee mbooloo mi nga xam ne bu ilimaan ñëwee daal lañ xamoon ci sunna rekk lay def xutba bi arab kese kese lay doon ba tey itam ilimaan bu dee xutba ñaari xutba yooyu te mën a taxaw taxaw ga waru gar la su ko bàyyee toog du tee xutba yu wër waaye dana ci am bakkaar ndax bàyyi na waru gar lañ gën a sukkandikoo daal mooy bu mënee taxaw ci bi muy xutba ñaari xutba yi te taxawut daal di toog du tee xutba ya moom wér waaye nag dana ci amee bàkkaar ndax bàyyi waru gar sunna la itam nag balay tàmbali benn xutba mu toog ci njëlbeen nga as ndiir niki balaa xutba xutba bu jëkk bi toog as ndiir bu jeexalee xutba bu jëkk bi balaa tàmbali bu ñaareel ba it noonu toog as ndiir sopp nañu it xutba bi mu tàmbalee ko sant yàlla ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ilimaan dee xutba ñaari xutba yooyu nag dañ ko war a déglu rekk araam na di fa wax jenn wax doonte sax nuyoo la mbaa fay ab nuyoo lu araam lay doon bu kenn dee wax itam mbaa mu def lu wërte defit boo ko dee xàjji di ko jéem a aay itam yaa ngi koy fekk ci def lu araam bul wax kenn ne ko noppil mbaa nangam hadis ba nee na ida qulta li saaxibika wal imaamu yaxtubu yowma aljumuhati an sit faqad lagawta faqad lagawta ba waxee sawaay ne ko eh noppil waay fekk booba ilimaan di xutba kon booba soow nga la ñuy aaye def nga ko loolu ñu ko aaye nag mooy ilimaan di xutba moom muy wax mbaa muy nuyoo mbaa muy fay ab nuyoo mbaa muy aaye kenn mbaa mu di ko sànni aw xeer naa ko noppil mbaa lu ko nuru bu ko defee jëmmi tuyaaba ja waroon a am ci jumaa ja moom lay ñàkk waaye nag bu dee jëmmi julli jumaa ga dana wër kenn du ko wax ne ko buñ sëlmalee julli tisbaar buñ dee nodd noddu ñaareel gi moom dañuy araamal lépp luy xeetu jëflante ni ki jaay ak jënd ak leblenteeg weccenteeg yooyu yëpp dañ koy aaye aaye araamal daañu maye nag bu fekkee amoo ndox jënd rek moo la koy may te amoo loo laabe boo jëndul ndox mi doo am loo laabe dem ci jumaa ja daañu la may kon nga jënd ndox ka lay jaay itam jaay ga du wàññi dara jaay ak jënd ak lim ci teg muy dab dab mooy soo bokkee nit suuf mbaal yu taq ci suuf te séddoowu leen ko bu jekkee jekki jaay te yëgoo ko sañ ngaa dab kam ko jaay jëndaat lam jëndoon boo dikkee moom lépp te njëgg rek nga koy delloo du sañ a bañ loolu ma tudd ashufaatu dab almudaaraba mooy jëflante ci xiraab maanaam jox nit wurus mbaa xaalis li ñuy wax capital mu yaxantu ca su ko defee nag ngeen diggee ca bénéfice ba mu am ca nangam nga am ca nangam yooyu yëpp nag dañ koy aaye buñ xasee tàmbalee noddu noddu ñaareel gi ci ajjuma ja moo tax mu teg ci faf saxu nang ko firi yooyu yëpp luñ ca def rek yoon da koy tebbi bu ñu jaayantee ci waxtu bu ko yoon yëgee day tebbi njaay ma delloo boroom njaay ma am njaayam delloo boroom njëgg njëgam li fekk delloo ga weesut noonu la koy def su delloo ga weesoo it ñu bàyyi njëgg nga xam ne moom lañ jaayante woon te seet rek geneen njëg goo xam ne dana tolloo xaymay marchandise ma ca bis bañ ko jaayantee te bàyyi njëg gañ ko jaayante woon ñoom yaar yi mu ci teg itam muy xeetu dab googu mu wax wala xeetu xiraab yëpp ñoo ci yemoo dañ koy dindi lu may nag ñu jëflante jëflante goo xam ne amut jokkalante maanaam du kee daa joxe kee itam joxe kenn ki rek moo joxe ni ki maye mbaa saraxe yooyu yëpp waruñu ko woon a def waaye moom kenn du ko dindi fasub sëy moom xaw naa nuru jaay nag waaye du tax ñu dindi ko naa buñ mayee ab sëy ci waxtu ñu nodd noddu ñaaral gi ci ajjuma itam du tax ñu dindi sëy ba buñ fa mayee mbaa ñu saraxe fa yooyu yëpp dañ koy bàyyi rek mu wéy bañ koo tebbi ndaxam nag song nga def ko lu araam la woon waaye kenn du ko tebbi day bëgg wax yi ñu sib ci mbirum jullit jumaa bokk na ca ñëwoon nga ba toog naafi la la ngay naafi la ba àggal gannaaw ba nag kii noddu noddu nga daal jóg tàmbalee naafi la mel ne noddam gi moo la tax a jóg di naafi la de sax soo agsee fekk muy noddu ba nodd ngay daanu da ngay daal di naafi la rek loola dara nekku ca su fekkee ne itam dangaa ñëwoon laata waxtu yu jot ba nga ñëwee xëy na nuyu woon nga jàkka ji mbaa naafila woon nga daal la nga bëgg a naafila du tee moom bu waxtu yu jotee ba noddukat bi noddu man ngaa jóg naafila ndax dangaa bëgg a dawalal jullit jumaa gi naafila ya koy jiitu nodd gi taxut sib la ñu ñu ne tey ji la ajuma nga daal di bàyyi la nga daal liggéeyee moo xam yaxantu la moo xam bay la moo xam méccam xarala la nga daal di koy bàyyi ngir ne damay topp sunna moo tax mu bàyyi saab liggéey nde sax boo jàppee ne liggéey bu ne du ñàkk bis booy noppalu te nag boo noppaloo ci ajuma ji moom da nga mën a waajal ajuma ji mën a baril jàng alquran jàng xasida ak yu bare bari nga far def ajjuma muy sa bisub noppalu loolu lu ñu sopp la lu ñu taamu la waaye nag ajjuma ji tax rek nga ne daay màggal ajjuma ji daa koy ormaal dama bëgg a topp sunna ba tax nag nga bàyyi sab liggéey loolu lañu sit bu la juma waree nga xës jekki ba fajar fenk bu ñu sañoon nga toog ba julli juma doora dem di tukki sib nañu juma war la fajar fenk na ba noppi nag nga doora bëgg a tukki bàyyi fi julli juma gi waaye nag sib dong la agul ci araam ndax julli ga waragut waxtoom des na lu may nag danga am ñuy àndal ñoo xam ne buñ la xasee raw moom dana doon lu méttee métti ci yow ndax tukki boobu mbaa ngay demee ci lu am horaire loo xam ne bu la waxtu woowu rawee rek dana métti ci yow su boobaa kon sib googu amatu ca bu tisbaar jotee jant bi rëcc nga xam ne julli jumaa gi war na julli juma war la boole ci day araam nga génn di tukki te xaaroo ba julli juma def sa farata ji ba noppi lu may nag mu wóor la ne da nga àgg ci ab dëkk julli fa juma kon mën ngaa daal di génn ba tey bu fekkee ne da ngaa amee horaire boo xam ne ca nga war a tukkee te bu la xasee raw dana nekk lu méttee métti ci yow. daañu la may nga bàyyi fi jumaa ji dal dem ca tukki boobee léegi booy dem ci saxaar mbaa ngay dem ci avion tukki boo xam ne daal moom bu la waxtu xasee raw rek moom da nga ca am jafe-jafe lool kon daañu la may nga dem waaye bu doon lu amee horaire loo xam ne boo xaaree ba jumaa ji noppi nga julli ba noppi du tee nga amaat saxaar ga mbaa nga amaat oto ba mbaa nga amaat avion ba ci loo xam doo ci am benn jafe-jafe kon day war nga xaar ba julli jumaa door a dem takk-takk bi daal mooy bu fekkee ne julli jumaa war na la te waxtu jumaa wi jot na lay tax nga sañ a génn di tukki mooy am na ñuy àndal ñoo xam ne buñ la xasee raw doo ñemee demati ca tukki ba ndax da ngay am tiitaange ci sa bakkan wala ci sa alal wala boog li ngay tukkee am horaire boo xam ne moom bu la xasee raw rek jeex na kon am nga ngànt mën ngaa bàyyi julli jumaa gi dem ca tukki ba bu dul lool bu dul lool nag mu araam nga bàyyi fi jumaa ji dem di tukkee ca ngaayul ajjuma sunna resu dëgër a dëgër am na sax ñu àgg ci wax ne daa war balaa baax nag nga bàyyi ba fajar fenk nga doon koo def boo sangu woon njëkk fajar di fenk daal dem ci jumaa ja xaar nag ba julli jumaa it du tax ca ngaay la moom wér ndax jiitu gam jiitu fenku fajar dañuy sardi it boo sangoo ba noppi dal jóg wuti jumaa ja fa saasa xanaa daañu la may day diir boo sole sa yéere yi demee noonu rek ak boo aajowoo jàppaat ci gannaaw ca ngaay la nga jàppaat su sangoo ba noppi nag tëdd nelaw dal nay ñàkk ca ngaay la ndegam nelaw yi moo ko coobarewu rek bu yëgguti dutee ca ngaay la moom yàqu na bu fekkee nelawee teyu ko woon it waaye xës na yàgg ba tey ñàkk na ca ngaay la waaye nag su fekkee nelaw ya teyu ko te yëggut moom ca ngaay la dara sikku ca bu ñu nee ñàkk na ca ngaay li ca ngaay li moom ndegam mën naa ñàkk su sawarut mën naa daal dem rek jumaa ja su sawaree nag baamuwaat ko nekam xaj na fa ndax mu am sunna si ba tey it bu sangoo ba noppi lekk-lekk gu am solo ni ki añ ba àggal door a dem ci jumaa ja daal nay ñàkk ca ngaay la bu lekkoon tuuti nag mbaa mu naan tuuti loo xam da caa loolu rek tax mu def ko nag dara du sikk ca ca ngaay la waaye bu lekkee lekk bu am solo moom li ki añ daal nay ñàkk ca ngaay la bu sangoo ba noppi nag daal di wuti jumaa ja yàgg ci yoon wi mbaa mu nelaw ci yoon wi mbaa ba mu demee ba ci biir jumaa ja mu nelaw foofa itam moom du yàq dara ca ca ngaay la sopp nañu it ci ku bëgg a dem jumaa ja nara julli ji mu rafetal aw melowam di ki lewi ay wexam jemp ay mustaasam xus kawari poqutaan yeeg wat kawar naq ga ndegam aajo woona wat mbaa xus ga poqutaan ya ak soccu solitam yére yu rafet bu dee ajjuma nag moom lu gën a weex rek gën a baax doonte daa màggat daa wuuteeg korite tabaski korite tabaski moom lu gën a rafet gën a yees rek doonte weexut mooy gën waaye fii moom ci ajjuma lu weex moo fi gën ni sopp loolu it mu xeeñoo xet gu neex ndegam du jigéen bu dee jigéen moom du xeeñoo xet gu neex góor rek lañ wax sopp na itam bu dee dem mu dox ak tànkam su dee ñu ko ñibbisi nag moom mën naa war mbaamu dugg leneen ndegam julli leen ba noppi rek jaamu yàlla gi jeex na ñibbisi bi moom mën naa war mbaamu dugg leneen te bañ a dox day wax ngànt yi nga xam ne mooy tax mën naa bañ a dem ci jumaa ja te du ci am bàkkaar bu jëkk bi mooy rafle bu rafle ba amut lu mën a sàng awraam kon julli jumaa waratu ko am na sax ñu wax ne su fekkee àggul ci googa rafle waaye lam am bu ko solee day rus ci kanam ay moroomam ndax loola daal dafa yemaay bopp kon am na ngàntul jumaa mooy mën naa bañ a dem ca jumaa ja li mu ci teg muy toppatoo ku tawat dañ koy teqale bu dee ko tawat day ab jege ñaaleem ni ki muy ndeyam mbaa baayam mbaa muy doomam mbaa muy lu mel ne soxnaam mbaa ab xaritam bu ko jege jege ñooñu moom bu ñu xasee tawat tawat ju metti rek doonte àgguñu ci sukkuraat moom mën naa toog bañ a dem ci jumaa ja doonte am na kenn ku leen taxaw sax waaye loolu ñu demee ci moom rek mën naa toog bañ a dem ci jumaa ja bu tawat ja méttiwutoon nag te it am na ku fa mën a nekk taxawu leen kon du sañ a toog faaw rek mu dem ci jumaa ja bëre nag ka tawat jaambur la ci moom mbaa boog bu dee mbokkam it mbokk mu sore sori la lay tax mu sañ a toog fa moom bañ a dem ci jumaa ja mooy moom kat aajo woon ku ko taxaw ci wéradi ga suñ ko bàyyee moom rekk dana loru te it keneen nekku fa ku koy taxaw kon na toog toppatoo ko te bañ a dem ci jumaa ja su fekkee ne it dafa am ko toll ci sukkuraat te moom nag moo war a toppatoo mbiram ni ki bu yàlla dogalee yàlla moom ko nu ñu koy waajale ak ñan lay jëli ñu waajal ko ayu ci aju bu fekkee loolu moo koy toppatoo kon na toog loolu doy na ngànt waaye nag su fekkee am na ñu mën a taxawu googu wàll rek na fa ñooñu des taxawu googu wàll te ñi ci des dem julli ji jumaa dañuy bañ ñu xër ca kookee di waaj a génn àdduna ba tax ñu bare bari toog fa ngir loola def ko ngàntul jumaa te ñenn ñi rekk mënoon nañ faa des mu doy sëkk yoon wa ñuy aw jëm ci jumaa ja bu fekkee dafa def ban boo xam ne boo ci dëggee muy summi say dàll kon loolu ngànt la man ngaa bañ a dem ca jumaa ja su dee taw taw bu bari boo xam ne faaw nga jàdd seelu mbaa nga tooy ba tey kon loolu ngànt la mënees naa bañ a dem ci jumaa ja bu fekkoon ne nag ban ba taxu ko am solo taxul mu naqade doxe noona man nga caa dox ak say dàll mbaa boog taw bi taxu koo bari daanaka doo tooy jërul jàdd di seelu kon loolu kon du doy ngànt faaw rek ñu war a dem ca jumaa ja moom ci boppam bu tawatee tawat joo xam ne mënta dem ci jumaa ja mbaa bu demee dana sonn lool lool ba coono ba du jaadu kon jumaa ji wàcc na ko su ragalee ne bu demee ci jumaa ja am na boroom doole joo xam ne dana ko jàpp dóor ko dóore tiwu ko fenn sax ci tooñ dong la waaye du ca mën dara bu ragalee loolu rek mën naa bañ a dem jumaa nga xam ne bu ragaloon ne àttekat yoon bi dana ko jàpp dóor ko waaye dóor yi moom ci yoon la koy teg léegi da ko war a géttan caw ko kon day war a dem ci jumaa ji rek buñ ko jàppee caw ko itam loola yoon a ko ko teg waaye du saña bañ a dem ci jumaa ja su fekkee ne dafa am ñu amee li bor dem ragal ne bu demee jumaa ji ñu gis ko faaw ñu jàpp ko yóbbu ko ci yoon ñu tëj ko ndax moom daa mel ne mën naa fay bu xamee ci boppam nag ne yàllaa ko suturaal rek kat waaye ci dëgg-dëgg amul lu mu fayee te moom bu demee faaw yoon da koy tëj lu ba xam daa mën a fay te fayut am daa tëlee fay te xam ne ci boppam noonu ak tëlee fay moom kon sañ naa toog bañ a dem ci jumaa ja ba tey nag bu ragalee ne bu demee ci jumaa ja daañu nangu àllam te du ca mën dara ba tey mën naa toog su màggatee màggat goo xam ne wéradiwul sax waaye dem ci jumaa ji daal dana metti ci moom lool ndax màggat gi kon mën naa toog am na ngànt bu lekkee lu naqari xet loo xam ne bu demee ci jumaa ja dana lor ña muy fekk ci jumaa ja du saña dem ci jumaa ja lu may nag nga xam ne moo lekk loolee naqari xet mbaa mu tux tux mu naqari xet ndax bëgg am ngànt lu ko may moñe dem ci jumaa ja su dee loolu yoon da koy forcé ci ne daal di fexe ba dindi xet gu naqari ga mbaa boog su mënta dañ nañ ko forcé mu dem ba ci jumaa ja bu demee beru ci ruq boo xam ne ci biir jumaa ja beru ci ruq boo xam ne ci biir jumaa ja du loru kenn kenn li muy wax kay mooy mu lekkoon lu mel ne laaj mbaa soble mbaa mu tux mbaa léeg-léeg lu naqari xet waaye daal daa defe woon ne balaa waxtu jumaa wee jot loola deñ mu àgg ci waxtu wa nag te deñut loolay def ngànt koo xam ne daa amee ngànt loo xam ne bu demee ca nit ña faaw mu lor nit ña ni ki ko amee ngaana te ngaana ngay wàlle ba tey kooku day araam ci moom mu jaxasoog nit ñi dañoo jëlali jumaa ji ak jàkka yi waaye dañ ko war a ber faj ko ba wér nag mu door a sañ a jaxasoo waaye du sañ a jaxasoog doomi aadama yi di leen wàll lu may nag ñu am béréb boo xam ne ci biir jumaa ja fa la ñuy ber ñi amee ngànt lu mel noonu nga xam ne duñ jaxasoog ñu amul ngànt loolu bët leen lor ni ki am na fu ñuy ber ñu amee ngaana kon day war ci moom daal julli ji nga dem ci béréb booba koo xam daa gumba mënta yóbbu boppam ci jumaa ja te amul ku ko ci yóbbu julli jumaa ga wàcc na ko su mënoon dem ak boppam mbaa am na ko mën a yóbbu koo xam ne dana ko fay sax waaye fay ga tey jaadu rekk yem ca te fay ga lu mën a mën la kon jumaa ja war na ko bu fekkee ne nag ko yóbbu faaw da koy fay te lam koy fayu du jaadu su boobaa nag kon ngànt la mën naa bañ a dem